kon bis bii nga xam ne lépp lu ñu am moom lañ ci lañ ko amee te Serigne Touba moo digle woon ba liggéey bi matin ndax waxtu wi saa su ma aksi ba muy nekk ci nattu ya la muy métti métti saa su agsi suñu borom dana ko tegaat natt yu gën metti métti yam ko tegoon te da yëg ni ko nit ñi di yëge ba ca njaarim nag. soriwut lool 1921 dafa am ay wuute nag waaye soriwu ko ndax loolu itam li ko indi dañoo wax ne sëriñ bi bu mu koy jëkk a màggal ca at mu njëkk ma booba siiwalu ko daa xëy rek suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak paye ci des sëriñ Tuubaa tàmbali màggal gi yëngeen gàtt ba mu ci njëkk ren te suñ mulaay bu so joxoon ko ko addiya ba mu cee jox ndigalit yebal sëñ Balla Fally Dieng wax ko na woo fere yëpp yëgal leen ko kon Serigne Touba moo santaane ni bis bi yëngu sax ci taalibe yi ndax da ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi agsee nag ma ci sant la yàlla kon bis bi ndigalu Serigne loo xam ne da koo fonkoon lool ñi xam taarix ñëpp itam xam nañ ne bis bi saa su ma masaan agsi ci njaarim fu ne nit dana fa togg ay ñam indi ko ci biir kër sëñ bi boo sëriñ bi sëlmale tisbaar génne ci jàkka ji xool teraanga yëpp wax ne nañ ko seddale ba njaareem gépp rek kon loolu mooy màggal gi kon nag loolu dara lu mën a dox suñ digg màggal gi ci àdduna amut ndax euh, suñ bakkan bañ koo fekkee moo ñu ba bañ a jëfe ndigalu suñ Tuubaa ndax bakkan moom lu mu yàgg yàgg yàgg bu dundoon téeméeri at tam bu xasee ba dem mel na la moog lu mëstaam ñu am bu lu jëfe lu baax ndigalu sëriñ Tuubaa nag Euh, defarug àdduna ak defarug àllaaxeer lañ ci yaakaar kon amul lu mën a dox suñ digg màggal gi Serigne moo ko santaani woon daa ko def di ko ànd ak ñëpp bari na lool ci ay mbindam itam ba muy nekk ci géej gi junj na ne Touba gii la koy defee nawaytu sukurahu la daa di la daa daari wa inda Touba ya bi jismin wa xilaam kon képp kuy xam kuy wax rek xamoo histoire waxaat na ne katabtu yowma chabti inda galwa bahda jihaadi wa firaaqi lbalwa alhamdulillahi allasi qad raada li alcida wa saaqa li axraada fustu lada galwa wa inda baafali bi ma bihi uniiru kulla maafali am na ci foo xam dafa wax ne alayya shukruhu lada daari salaam wa inda tubaaya bi jisminu xilam am na foo xam dafa wax na indahuma wa inda daaratil minaan kon yooyu yëpp lu firndeel ne la Sëriñ Tuubaa la ko yéene woon a def te Sëriñ Tuubaa ab gisam neex na neex goo xam ne lu ci naan na ko bëggee rek la ko suñu borom defaree ndax waxoon na ne ci njaareem la ma suñu borom wane li nar xaw sama ginaa bool lépp ma fàgg ko kon nag loolu noonu la ko Sëriñ Tuubaa santaane woon njaboot gépp maasoo woon ci di ko ànd ak moom ba yàlla def. Serigne Touba ñibbi si Touba ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko njëkk a ci ab jataayam wéyale ko na ko Touba daa digle ba suñ boon def mu ñibbi si ab liggéey mat Cheikh Mouhamadou Farid door ko andi fii ci Touba kon loolu mooy histoire màggal gi kon nama ko waxee woon daaw bu ko Cheikhul Xadim Xadim santaani wutoon muy ndigalam Cheikh Mouhamadou Moustapha santaani wu ko muy ndigalam Cheikh Mahamadou Fari njëkkoon koo xalaat sax doy nañu sëkk wóotaluñ ko ndigalu Sëriñ Tuubaa kon loolu foofu la pëstéefu taali bi àgg kon nag ñi ciy wax ñàkk xam walla dugg ci lu seen yoon ndiwut ndax ñañe waxal digluwuñ leen màggal gi kenn ci am sañ-sañ mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa nag amul jotu di diglu ñi ci biti lam war a def xam na ko Cheikh Mahamadou Mountakha ni ma ko waxee woon daaw bépp responsabilité bu mu war a jël moo ñu mag fuuf ëpp ñu xam-xam fuuf gën ñoo ragal yàlla fuuf gën ñoo jege Sëñ Tuubaa fuuf gën ñoo engagé ci mbirum Sëñ Tuubaa fuuf kon kooko gën ñoo xam-xamu xam-xamu àdduna kon ndigalem rek lam daa wax rek fale ñëpp war a nekk mooy sama kilifa dama koy bàyyi sama jëmm bàyyi ko jëmmam waaye nag àdduna la Serigne Touba waxoon booba woote ak Cheikh Ibrahima Faty mii jëwriña ma nga woon ci jotaay ba sëy mu laaj sëriñ ma sàmba ne ko ndax ma sàmba ndax ñëpp ñëw nañ ma sàmba ne ko ñëpp ñëw nañ de mu ne ko waaw loolu de woote dëgg ñëpp wuy si la ci de yàlla mayu ko boppam mayu ko rasuul kon du ko may kenn waaye nag nañ xam ne fa in yakfur biha haulaay faqad wakkalnaa qawman laysuu bihaa bi kaafiriin kon ñu sant yàlla rek mi nga xam ne moo ñu fekke moo ñu may ñu fekk waatatal ko wax ji nag timis yi xaw nañoo jot waaye faaw mu xaw a gudd tuuti ndax tolluwaayu jamono ndax alxuraan boo fa demee da ngay na ne waskur fil kitaabi Mariama waskur fil kitaabi Ibrahima. waskur fil kitaabi Ismaila innahu kaana saadiqal wa'd waskur fil kitaabi Idrisa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafa'naahu makaanan aliyyan kon dafa bëgg ñooy fàttaliku ñi fi jaaroon. njabootu Serigne Touba gi nag ki ko jëkk a wuutu mooy as Cheikh Mouhamadou Moustapha war nañoo fàttaliku ci moom njàmbaar ga ak fit wu rëy wa ak doggu ko ci liggéeyal Serigne Touba ba taxawal yoon ni ñu ko taxawale tey te la ci jiitu. mooy raay bi mu indi Touba te loola lam ci jubloon mooy bëgg ñépp xam ne mën nañoo demal seen bopp yemu ca mu xam ne ku bëgg moom sa bopp faaw nga moom sa bopp mu góor ay dëkk yu bari woote ay toole àllarba ngir liggéeyal ko Sëñ Tuubaa ci jumaa ji mm-hmm. ànd ko njabootu Sëñ Tuubaa gépp yëkkati leen teg ca kaw danaa ci joxe menn misaal mu gàtt nekk na ca Taïf mook soxna Ami Cheikh ak soxna may muuta soxna may muuta te ñooñu xam ngeen ne ay rakam lañ te xam ngeen nim ne nim ñoom ci at waaye ñu jëfandiku ba noppi mbubboom la jël jox leen ngeen fomp ci neen seen taalibe bi bàyyi la kon foofu la àggoon ci Pastef ba Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ñëw bi Cheikh Mamadou Fadi Mbacké ñëwee wéyal liggéey ba ca na mu ko fekkoon Cheikh Mamadou Moustapha def yitte ak jom gori dëkk sancaati daara lépp jëma ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi tabax sax mos noon koo def ba jumaa jàgg ànd ko taali bi yëpp yokk dëkk bi moderniser ko marché okaas bi indi tëli indi fi ay forage ubbi dëkk bi ba yoon wi mel nii tey